ci xumbaare googule la teeroo président Bougane Gueye Dany bu mouvement gëm sa bopp Babacar Ndiaye yëkkati ay kàddu daal di xamal askan wi ganam gi leen. voir la Sénégal mais pour tout Sénégal nañ ko xam moom mii bu ko yàlla joxee li mu bëgg ci Sénégal waaye ki nga xam ne dafa yor yëfu boppam mënoon toog ci bureau climatisé yoonam nekkul ci Sénégal. di gérer ay milliards ah yor plus de 500 employés embauché lu mot juróomi téeméeri nit waaye kooku bu fekkoon ne alal rek lay wut ci Sénégal mais du toog ci bureau mais xoolal alalam boobu yéene bu mu am ci Sénégal jël ci alalam dugg ci biir Sénégal fu ne mu teg fa tànkam amatul jot carburant xaalis lu ne mu koy def pour uniquement askan bi ne ci jàmm. Bougane gi Dany ba mu yëkkatee kàddu la mu xamle moom moo di réalisation yi Babacar Ndiaye def eh, ci ngoogom da koo yéema li lee tax mu bëgg waa Bambey ñam ci ba tax mu dig ko ne ko moom lay samp mu jiite conseil départemental bu Bambey mooy ci mburu meeg soow mi mooy yéen ñii seenug nekkin yéen ñii seenug yokkute yéen ñii seenug ëllëg mooy yitteel monsieur le maire te yaakaar naa ne li mu def ci bilan bu leen nee seen ëllëg ak seen nekkin moo ko yitteel war ngeen koo gëm parce que def na ngeen gis kon ci turu département dama lay ñaan lépp loo defaloon waa Ngogom nga gën ko dolli waaye comme xalaat bi ma am man mooy defar Sénégal dama bëgg xalaat ak yéene bi nga defaree Ngogom ñu yóbbu le conseil départemental nga commencé ko d'abord ci commune yi nekk ci département bi. Babacar Ndiaye bam pare daal gërëm askanu Ngogom mi nga xam ne 2002 ba tey ñu ngi koy jàppale moom it mu ne jig na leen ndax réalisation yi daal di nañuy bari mu daldi koy lim. gouvernement ñeenti at la ñu def ak Ablaye Wade de 2002 pratiquement 2005 ñu pare ci Ablaye Wade mu gën a ñu sempi suñuy loxo teg fële jël ñoo xam ne ñoo ko doon wax lu ne. ñu bàyyi ko fa gëm suñu bopp gis nga le concept gëm sa bopp gëm sa bopp gëm sa bopp gëm sa bopp gëm sa bopp dafa am solo courant xam ngeen ne am na dëkk yoo xam ne yu mag ñu ñu ëpp la am ci courant weesuwul fukki dëkk fii mu toll dëkk yi ñuy réaliser muy Ndoukoumane mu kër Aliou kër Ibra Diop ALM bii nga xam ne pare na wàññi pare na juróomi dëkk yi buñ ko réaliser ñu am 100 pour cent courant ci commune Ngogom. bu ma jëloon rek par village village bii ñu nekk rek village yu Ngogom village yu Ngogom biñ fi ñëw ñun ñoo fexe bu jeunes yi am terrain de football mu nga nale village yu Ngogom ñoo ñu am case de Touboti mu nga nale village bu Ngogom ñoo tax ñu am CM ñu nga dale village bu Ngogom ñoo tax ñu tabax lii mu ngi nii muy hôtel communautaire village bu Ngogom ñoo tax ñu am château bay ngeen di gis loolu ku ko liggéey nga ne liggéeyul yow da ngay wax lu la neex te mën koo lim ci village bu ne ci commune Ngogom bésëb ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeram octobre 2021 nekk na luñ bind ci taarixu ngoogom ndaxte seen maire bi di Babacar Ndiaye ci la daal di fekke ji Bougane Gueye Dany bu mouvement gëm sa bopp ngir ñu ànd joxante loxo ngir mën a gagné commune bu Ngogom ak département bu Bambey eh, ci joŋante gox-goxaat yi nga xam ne ñoo war a am ci deux mille vingt deux vingt trois janvier lay doon Malick ñi ngi moo leen teewaloon sa ndaje ma ngir Bambey vingt quatre.